yére yi fu mu jóge mu ni ko yére yi fu mu jóge mu ni ko sama sang moo ma sàng Muhammadu Rasulullah mu ni ko yére yooyu nag balaa yàgg nasaraan bi dana indi ay woo xam ni jullit ñu bari dinañu ci dee muy guerre quatorze dix waaye ku seet dee sama yére yooyu lan lay sànge moom annoncé na guerre te dikkagul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 di di di sëñ bi appareil bi tàkk ci loxo Gilbert photographe bu mag la woon ca Ndar waaw ca léegi mu dem jëli beneen appareil ñëw tiimale ka sëñ bi mu mu takkati ci moom mu gumba ñu ni sëriñ bi nag léegi ndax moom tàkkusaan la daan yeesal njàppam tàkkusaan tàkkusaan waaw mhm.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 faw rek nga am mel na mel façon boo xam ni ñi si des mel nañ ko ngir la nga xam ni abu jahlin la nga xam ni umayat ibnu xalaf aas ibnu waayil assahmiyu walid ibnu almugira wa gayruhum du nu waxoon ni du fi amee ca makka te moo di kalimatu tawxid muy dem di dem di dem ba dem ba ay nit ñoo xam ne ñu ngi ci sowu jëntu Afrique seen karaw gàttu ñuul kukk yëkkati kalimatu tawxid yeneen sëñ Bamba layu dafa bokk ci layu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam gàmmu Njaasaan dafa dëgmal si na nii gouverneur général jóge Ndakaaru dem fekk sama bay sit mu koy takkal pour takkal ko légion d'honneur mhm. mu ni dee du ko laal bi moo koy waxee mu ni man de sama bàyyi Sëriñ Bamba moo ma jàngal lii ndax gouverneur général mhm. gouverneur du Sénégal commandant gu Njaaréem mhm. ñoo dajaloo dem fekk Sëñ Bamba ca Njaaréem di ko jox croix de la légion d'honneur mu lànk ñu wax wax wax wax mu lànk ñu wax mu ni leen lii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 Mhm. mu lànk moom jëlu ko ndax nee na du màndarga du màndarga jullit croix sëñ Bamba Baye Sidi Lamine ni sama Baye Sidi Lamine Cheikh Ahmadou Bamba laay roy ci loolu mhm. moom itam bañ ko yii dafa wone rek ni euh, moom daal mhm. euh, yàlla fay na ko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 ndax rekk tëddët baat ba jëm bañ jëm kaw lépp kon loolu dafa wone rek ni sunu mag ñi amuñu seen pay ndax sëñ Muniru Sarr radiallahu anhu daf daan wax ni penku de ñoo nu gënoon mag ñu jëkk waaye ñoo leen gën mag ñi mujj Ah, waaw waaw ñoo leen gën mag ñu mhm. Mhm. ba tax na Bamba mhm. li sëñ Muntaqa wax rek moo si nekk sëñ Muntaqa yal fi yàlla bàyyi te jox ko wér gi yaram mu yàgg fi lool xolom rëy na jikkoom rafet na man dafa mas ñëw ci yi kenn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 yoon yi moom ma dem sant moo ma def hmm. la ma ko defal du dara waaye mu rëy ci moom waaw sëñ Muntaxa nag hmm. li mu wax daaw hmm. ah booba toogagul loolu rek mën nañu si tënku te jeexal si moo di dafa ni képp ku ni da bëgg sëriñ bi te la sëriñ bi nekkoon nekkuloo ci noonu sëriñ bi mu ni ay waay gi sagaleen sëñ bi ci lislaam naan ngeen koy sagale ci lislaam jooxalee seen farata jooxaleen seen sunna julli leen woor leen lii ngeen di sagale sëriñ bi ci ci ci ci lislaam sëñ Muntaxa ka wax yàlla na ko fi yàlla bàyyi na sëñ Tuubaa ku bokkal boroom la waaw waaw waaw ku soññ na la waaw waaw <laughs> lii daal <laughs> avant sa sa sa suñu Ahmad dañoo bëggoon rek yow sa diggante sa pas-pas ci sëñ Tuubaa maanaam ndax ñu ngi xam ne ku bëgg sëñ Tuubaa la lan nga ñu mën a wax ci sa diggante sëñ Tuubaa. man de ba ma amee fukki at ak juróom-ñaar laa bind livre ci sëñ Tuubaa. maa ngi wax ca Ndar. 17 ans. Mm-hmm. def naa benn livre ci sëñ bi mi ngi fii ci ISRA. Mm-hmm. Euh, ndax. dama gis fonk gi sëñ tubaab fonk sama maam Cheikh Sidil Mokhtar Kounta demal seet Masalikul Jinaan yi mu ci wax ci ci Cheikh Sidil Mokhtar Kounta bare na man nga ci Masalikul Jinaan euh, bés dem naa belal ci sëñ Abdoul munoo Bachir kaay ma ñëw mu dem yóbbu ma ci béréb boo xam ne bindu sëñ bi ci loxo boppam moo si nekk mu génn génn génn génn génn ni ma jàngal lii mhm. sëñ bi wax ko ci sama maam mu ne ma xanaa lii yàgg na mhm. euh, ma ni bon loolu benn la mhm. ma ni kii de ku ñàkk kañaan la sëñ Bàmba cër bu yàlla jox nit keneen ku dul moom sëñ Bamba nangu na ko mhm. Mhm. kon koo xam ni rëy ak kañaan ak soxor nekkul ci yow nangu la sëñ Bamba ko yàlla defal mhm. man gis nga màggal gu nekk sama kër damay togg ñam yóbbu jox nit ñi jàkka yeeg yëpp màggal gu nekk moom ba ma ko dalee def itam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 Eh, moo di waajuru sëñ Moustapha ak sëñ Mamour Mbacke. waaw. sama la moo ma joxoon téere yi. Mm-hmm. ne ma na nga ko jàng ca raw de yonent bi. ma dem journaliste yi gis ay téere yi ni ma waaye mais kii kan la. Mm-hmm. may ñu téere yi ma ne ah non non mm-hmm. fajar sa ñoom ñu jóge fa war rentré. bi ma jullee pare pare ma ni man daal dof